peuple bépp a koy réclamé Pape Alé Niang na dem RTS 1 doon directeur ba Pa Assane Gueye lébu na doon mi euh, na doon euh, journal na yor journalu sport bi am RTS 1 beneen bi toog mooy Tahirou Sarr mii ministre des étrangers jox ko ko sëñ bi gis nga réew mi ñi nekkoon ci xeex bi doon wax farata nga xam ne xeexuñu woon ngir intérêt ñooñu faaw ñu teg leen ci programme gis nga Pape Alé bu demee RTS doon directeur ba ay caxabal ak yépp day dellusi waaye caxabal ak yéen naa ne waaw a ah, théâtre yi daanam altine ak àllarba ay bàyyi ili yeeg yooyu yëpp sëñ bi war a dellusiwaat RTS ñu koy jàpp comme ñëpp ñu génne Tom et Jerry yi ñëwaat sëñ bi ah Tahirou Sarr yor ministre des étrangers nga xam ne ay ga suñ mbokk yi dëkk ci yeneen dëkk yi jël benn bitik buñ jaayee ba ngoon mboolem ku doon ambilage ku doon raxasi tànk ku doon joos ay we ñoom ñëpp ñu bokk fanaan ci biir bitik bi fi ni jaayee mayonnaise beeg nen yeeg bitik beeg lépp ci la ñuy tëdd benn may nga 14 14 14 ndrek tiiru sar maîtrise na yëfi xexuñ ne ndax seeni dekk suñu dooma nga fa suñu doomi dekk mais nañ tagu ci programme waye jóge benen dekk ñoo yor état yor yor euh, nationalité réew mi dekk dekk ci dekk bi am fi ay kër ak lépp doomi dekk bi ci bopam di souffrir di ami pak ñu koy lepp lépp sar na yor lolu ministre de euh, étranger mën na ko maîtriser nako lolu nak mom moom Bassirou Diomaye président de la république di mënañu ci lolu rek RTS euh, pap ala ñaan da doon directeur ba pa Assane Gueye lebu ah mi naan walaay ndeysaan koku jox ko mu yor sport bi sport bi développer Aliou Cissé nag mën ngeen waxtaan ak moom ba xam luy projet bi fu ne nii waaw 5 3 2 wala 5 2 3 yooyu bu fekkee jugu ci waaw bu fekkee jugu ci na fi jug moom <laughs> waaw waaye lu mën a xew daal Tahirou Sarr moom Tahirou Sarr xaw eh na ko njàng ma nan na ci téeméeri teen Tahirou Sarr xel ma màcc na xam-xam ma doy na te xam na ne xew ci taxaw wax dëgg yàlla téeméeri nit ci benn néeg wala 14 personnes ci benn bitik wala 18 personnes ci benn mayga loolu war naa jug ci réew mi dëgg neexul ngi jégalu